حمدي وشكري لمن كل به سارة له ردا دون صوت حند سرسارا حمدي وشكري لمن كل به سارة له ردا دون صوت حند سرسارا وثقت بربي برب العرش ذي الجود والرفيع مع المصطفى والله لي مولد شفيع وزغت kay jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen image yu am solo yooyu macha allah mooy soxna maam lamp maam jaara euh, lamp maam jaara macha allah muy jàmbaar lool doon architecte euh, boo xam ni mooy taxaw lii nga xam ne mooy jumaa jii nga xam ne moo nekk sarsaara yaakaar naa bu ngeen gisee liggéey bi di ngeen xam ne liggéey bi mi ngi avancé bu baax a baax waaye ngir euh, dañ kumpa rek ci liggéey bi Euh, dañuy euh, tàllal sunu micro soxna jaara mu wax na fi ne ban étape la ñu toll ndax bu ngeen fàttalikoo ci suñu plateforme gisoon ngeen ko ci tàmbali travaux yi mu waxaat na ci lu am solo kon dañ koy jox rek mu wax nu ban étape lañ toll fi ne euh, ci wàllu travaux mosquée Sarsara. waaw jërëjëf ñu ngi ziare bu wér a wér a wér ah, boo xam dafa jël xam-xamam ak alalam ak kattanam jox ko Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul at mu jot ñu di fi daje muy kóllëre yal na fay. jaay la ko li Sèye Ibra Fall wax jëf jël ñàkk jarul ñàkk reul bom ndax fi metti na taat mu jot ngeen dugg ci auto yi son waaw ku leen gis nak ah fone sax ay naan ngeen <laughs> waaw ndax liggey bi nga xamne mom ngeen di seigne Touba waaw fi ci Sarsara waaw yalla ngeen ko yagga def yalla yok xewal gi te jappale leen bu baax waaw liggey bi fiñu tollu ni moy lamfal bi fi nek ni lamfal bi mom la ñuy defar boo gisee defar nañ fondation bi ba pare ba génne poteau en élévation yi

nga gis euh, am euh, état d'avancement de travaux yi xel dal na ndax dangay ngeen xool ne euh, fii indi fi matériaux dafa metti waaw béton beeg ciment beeg fer beeg yëpp waaw léegi bi nga xamee ni liggéey na liggéey bi ah ba si ci premier niveau boo xoolee gis nga fi ay plaque plaque métallique pour coffrage bi. nee naa plaque métallique moo gën a am sécurité que planche parce que planche mun na fett. mu jël ay planches métalique moom la coffré boo xoolee ay été en fer ah moom la coffré comme ni mu ko defee woon fee ci jàkka ji waaw jël ah lépp loo xamee ne rek ah euh, jëm na ci sécurité mi ngi ciy góorgóorlu voilà fii xam ngeen dafa am ngelaw ne ñi nga xam ne ñoo fa nekk naan jërëjëf Serigne Touba dañuy dem ba ngelaw li ci boppam day fël siwo yi siwo siwo siwo si siwo ciment yi waaye loolu yëpp ñoom it ngërëm lañ soxla te boo xoolee tamit dans l'ensemble état d'avancement des travaux yi te nga dugg ci biir jàkka ji nga gis fépp foo xamee ne rek raaxuñu ko xamal ne day am karo li ci des peinture nañ ko waa def nañu attente yi waaw lépp loo xam ne jëm na ci contact prise lampe génne nañ ko ba pare waaw te buñ paree ci jàkk ji am na ay maxdara yu ñu war a defar ñeenti maxdara waaw yi màndarga ñeenti at yi nga xam ne sëñ Touba def na ko fii buñ noppee ñu def ko sëñ Touba def ay hébergement ndax gis nga dalwaay yi nañ mel waaw def ay éducule nag éducule mooy ay toilette nañ def toilette jigéen def toilette góor ndax xam nga ni fi amagul toilette góor ñi di dem fee jigéen ñi dem fee loolu yëpp prévoir nañ ko ci ci projet bi di ñaanal képp koo xam ne ouvrier nga di fi ñàkk ànd koog sëñ njiit sëñ Moustapha Dieye ak ñu yore commission bi ku ci nekk la ngay yëngatu ak daayira ba nga nekk di def ci Sarsara yal na ko yàlla ak sëñ Touba Faye yéen yal na leen sëñ Touba Faye yaatal télé bi yaatal liggéey bi. ndi wa sukri liman la xoori dan doona soo tin xinda Sarsara لمن كل به سارب له ردا دون سو تنهند سرزاب